ndigalul sëriñ taxa waaye ci kilifteefu sëriñ Ahmadou Maxtaar ak ci ay ndigalam ci lañu taxalee kuréel bu mel ni mu wax nag ne nañ ko yaatal ci njaboot gi nañ ko yaatal ci taalibe yi yaatal gi ci njaboot gi ak ci taalibe yi nag moo waral mu war a egg fu àdduna toll rek ñu yéene mu egg fa mel ne ni ngeen ko baaxoo ni ngeen ko xamee ni ngeen ko baaxoo amalee màggal gu jot ci màggalug Daaru Xudus ñu koy woowee màggalug Daaru Xudus muy dëppoo ñaar fukki fan ci weeru Muharram ren ji dafa mel ne de dëppaloo ak téeméeri ati sëriñ bi bi mu seetu ba ci li ñuy wooye weeru wolof mu dëppoog 1346 ba 1446 muy téeméeraat ci hijriya mu mel ni kon màggalu Daaru Xudoos ren téeméeri at ci sëriñ boobu ci Touba dafa am ak yokkute ndax màggal gi kenn ump liwut ne Cheikh Moustapha moo ko woote woon doon ko wootee Serigne Touba amit ay wax yu rëy yu ci wax ñoo xam ne jar na jullit bu ne mu war caa ñëw buñ doxee nag yàlla dimbali nu ñu dem ba téeméeri ati sëriñ bi ci tuubaa ñu koy waajal mu dëppoog màggal googu ci sëriñ ku yilif daaru xudus daan ko daan ko jiite loola rek moo waral tey ngeen gis nu fii ci kanam waaye màggal gi màggalu murid yépp la mu mel ne kon ñun ñii teew fii tey ay ndaw yu sëriñ Muntaxa la ñëw fii tey ay ndaw yi yoonu murid yépp lañu ah. ñu jot ndigal nag ginnaaw bi ñu jotee bi sëriñ Ahmadou Makhtar jotee ndigal ci sëriñ Muntaxa xalif général de Mourides ñu jot ndigal ci sëriñ Ahmad moo wax ne nañ taxawal kuréel gu mel nii te bala ñu cee jëf dara muy siiw àdduna di ci jot nañ ku ko war a yëg ci njabootu sëriñ Tuubaa na yëg ndax maag ñoom ñoo ci yam loolu it dox nañ ci suñu kemtalaay kattan loolu moo waral point de presse bii xëy na ñu yeex ci jublu ndax bëgguñu ñu koy déggandeem ci ay rajo walla télévision xam naa liñ ci war a wax ñi ci war a wax bari na te sunu kilifa ci liggéey bi mu ngi ni topp da ci am loo xam dañ ko koy bàyyee. bis bi centenaire bi liñ ci bëgg loo xam danañ ko compenser mooy. bi sëñ bi jógee wuy ji boroomam ba bisu tey bii li fi xew ci loo xam ne nii concerné wul sëñ bi c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy loo xam ni murid la concerné ak xilaafa yi nga xam ne ñoo fi toogalal sëriñ Touba liñ fi réalisé murid liñ fi doxal surtout le les sur le plan économique sur le plan social sur le plan spirituel sur le plan et même sur le plan politique ñu xool loolu lépp. bi nu sëñ mi wane gannaaw lan lañ fi liggéey ak lan lañ fi war a joyanti ak lan lañ fi war a proposer pour la génération di yi ñëw ndax bu ñu fi ñëwee war nañ fa fekk liggéey boo xam ne bu ko xoolee dana xam yoonu murid nu mu doxee woon ba agsi fii gannaaw Serigne Touba Serigne Touba nag moo liggéey liggéey liggéey liggéey bi waaye nit war naa ñëw génération bu fekki wut ñu ñëw tegale loo xam ne ko xoolee boo ko da nga xam yoon yi fan la jaar ba agsi fii te loolu nag ñu ngi ciy gërëm ak di ci sant. ak di ci wax Cheikh Moustapha ndax waxtaanul sëñ Touba la waaye Cheikh Moustapha dana ci feeñ baax a baax ndax ñépp ko bëgg ñépp bëgg mu feeñ ci mbokkam yëpp bëgg di feeñ ndax li ko sëñ bi dénkoon li ko sëñ bi joxoon mu matal ko na mu gënee ak na mu gën a rafete loolu moo tax tey jiitam nii yoon wi mel ak ni muy doxee yàlla def ci tawféex ak barak ma terminé ci ñett point yi nga xam ne moom la ko waajuram joxoon mu mu réalisé ko nam gën a rafete mooy indi sëñ bi jëlee ko njaareem indi ko Touba te benn autorité coloniale du ko tiim pexe yam jël nag ak astuce ak yëpp ba def ko ci xel la ko teg ak ñam ko àndal te ku gën a fës ci àndandoo ba sëriñ Bassirou Mbacké rakkam ndax ñoom ñaar képp ku ne xam na Cheikh Moussa ak sëñ Bassirou niñ meloon sëñ Mour Moussa léppam sëñ Bassirou la woon fu mu jëm moom lay àndal kon bu nee demee ba centenaire bi ñëw mu doomi sëriñ sëñ mo euh, sëñ Bassirou toog fi nekk sëriñ Touba en même temps kon sëñ Mountakha taxawaayam bii taxawaay bu rafet la ndax kët nit kët buy départ nga yëkkati 100 millions jox ko 100 millions tegale ci table ne la dem leen ngeen liggéey liggéey bi kooku xaj na. bëgg na yëf ya sotti rafet te murit yëpp jariñoo ko jullit yëpp jariñoo ko ñaareel ba jumaa ji nga xam ne fierté la pour l'islam Sëriñ doom ji Cheikh Mamadou Saba na fexe ba ba taxaba taxawal ma sama sama jumaa ji la ci sëñ bi wax yëpp ñëpp xam nañ bu ngeen ko ñeneen dañ ko def sëñ Modou Sa moom it man damay faral wax ne euh, l'autorité coloniale bu xamoon ne bu joxee Cheikh Mouhamadou Moustapha autorisation jumaa ji dana taxaw parce que ñoom jàppoon na ne Cheikh Moustapha même bu ko joxee autorisation du mën a réunir toutes les conditions nécessaires pour la construction de la mosquée pour ñoom échec la jëm ci échec la jëm waaye ne bu xamoon ne réussite bii dana ko am dana ko tabax kon duñ ko duñ ko jox autorisation bi waaye def na ko ba ba ko la ca desoon mooy njabootam gii njabootu boppam ak njabootu taalibe yi bu ñu njaboot gi rek boppam a ngi ci moo jiitu njabootu mooy ak taalibe yi te ku gis xam ne Cheikh Moustapha taxaw na njabootu Serigne Touba gi dajale na leen ba nëkkul sëñ bëggoon bu def waaye itam taxaw na murid yi ndax tey lii xew ci kër yëpp mu Moustapha la kon en premier lieu bu sëñ Touba jàllee bañ wax ci moom danañ titiller tout nag l'histoire ci liggéeyu sëñ Touba ak exil be yu mel ci à travers les conférences wala yu mel noonu wante l'objectif principal bi yëpp mooy sëñ bi bi ñëwee fii ak bañ denc ko lan moo fi xew ak lan lañ fi def ak lan lañ fi war a waxtaanaat ba teg ko loolu mooy objectif bi kon nag bis bi ñu ngi ciy woo jullit yëpp d'une manière générale mais particulièrement les mourides ñi nekk fii ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ñu nekk bitim réew war nañoo mën a à travers daayiru Serigne Touba yi lëkkali ko ak daayiru Cheikh Mouhamadul Moustapha yi ak daayiru Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbacke yi ñu def benn topp ci gannaaw président daayira bu nga xam ne moo fa toogal Serigne Touba ñu def màggal goo xam ne xaj nañ ne daal nañ ko def mais du bokk ren nañ ko def ndax ni ko sëñ bi bëgg la yaakaar naa daal brièvement loolu mooy objectif bi moo tax ñu dajaloo ba def commission yi nangam Serigne Cheikh Thioro kon ñu bàyyi la nga leeral xam ngeen ni bés bi lan moo tax mu ñu ñu defee ko ni dimension bi mu am lan moo ko waral xam ngeen ni ku tedd ki xaadimu rasul dafa dafa dafa dafa juddu ci kippaaru sunna seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam gémmee ci amul farlu ci digganteem ak boromam teel a àgg lool ci boromam ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam ràññi ko am lu mu sàkku ci moom te li mu sàkku ci moom moo di mu yeesalal ko sunna sunnaam si sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi waxal ko boppam wax ni li ma tax a jóg mooy yeesalaat sunna seydina muhammadin alayhi salaatu wasalaam fexe ba ñi nga xam ne dañoo aju ci man ma defar leen ba jàmm bi suñu borom bëgg ab jàmm mel ni ñu mel noonee moo nekk itey sëriñ bi mu wax ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnata ul xarra wa inni ahmadu diinun si waa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu sëriñ bi ci loolu la nekkoon di defar nit ñi tënku ci liggéey ba li ko li ko ci fekk li ko dal lépp ci loolu fekk ko ci li ko ci fekk lépp fekk ko ci ci liggéeyal yonente bi alayhi wasalaam ak yeesa sunna sayyidina moom bi alayhi salaatu wasalaam ci la nekkoon ba génn àddina ci bis bi nga xam ni mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram mu wuy ji boroomam am lu mu dénk Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim Cheikh Moustapha taxawal liggéey bépp ba la mu bëggoon mu defal ko ko léegi nag bi nga xamante ni ñibbisi na Touba ba Cheikh Moustapha indi ko defal ko na mu ko bëgg woon boobaak léegi muy téeméeri at téeméeri at du benn fan mu war a am luñ ci jàngat njàngat moo xam ni lan la indil tam ni liggéey bi bi ñu ko tàmbalee dem nañ ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mu jël ci dogal yi mu ci dëggal jël lépp lu ci war mu def ko bi ñu ko defee itam dem nañ ci mbooleem njabootu sëñ Touba yi kenn ku nekk jël na matukaay yi nga xam ne war nga ko cee jël ba incha allahu fas nañu ko ubbee fii ci Touba lañ ko fas yéene ubbee fukki fan ak ñett ci weer wi li nga xam ne nag thèmes yi fa war a traité ak ñi ko war a traité incha allah sëñ Bassirou ñaan mi dina ci dina ko leeral bu ñu fi jógee incha allah fukki fan ak juróom danañ dem Louga incha allah def fa benn benn waxtaan bu am solo moom itam jógee fa dem Ndakaaru fukki fan ñaar fukki fan ak benn ñëw njaareem ci ñaar fukki fan yi defee ko foofu incha allah kon ñu ngi ci woo ñëpp ñëpp ànd ko ak ñun ba mel ni ko suñu bëgg jërëjëf. Euh, centenaire bi nag ni ñu ko xamee danañ ko defee ci ñetti ñeenti barab yu bokkut ci waajtaay yi Touba lañ koy ubbee le 13 juillet 2024 incha allahu fii ci Darul Manaan ci barab bi ñu nekk suba gi ak ngoon gi euh, le 13 nag ci suba gi ci la ñuy waxtaanee. ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Moustapha ndax moom mooy ki nga xam ne moom la sëriñ bi santoon mu indi ko Touba waxtu sun borom ñëwee akub dogalam lañ fa war a waxtaane nag moo di Cheikh Mouhamadul Moustapha dimension yu wuute yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane ci moom moo di maanaam am njàngam wala xam-xamam ak mbindam maanaam fan la jaar cim njàng ci xam-xam ak lan la bind nu mu doon communiquer nu mu doon waxee ak nit ñi loolu ay discours ak i mbindam yëpp mi ngi ci biir ku ñuy wax al imam Serigne Moustapha Diop Cheikh Jëlay incha allahu moo koy waxtaane fii ci barab bii ci suba gi euh, bu noppee itam danañ waxtaane dimension spirituelle maanaam moom ni mu doon dunde diine ak ni mu doon yaree maanaam ni mu meloon maanaam nitu diine ki mu doonoon loolu sëriñ Ahmadou Mbacke bu Darou Mouhty moo koy waxtaane bu noppee ci loolu ñu waxtaane dimension sociale am ak ni mu doon jiitee xerañte yi mu amoon pexe yi mu amoon ba jiite yoon wi gannaaw bu fi sëñ Touba jógee mu nekk fi ak i waajuram nekk fi ak i rakkam nekk fi ak seex yi nga xam ne yépp ñoom la sëriñ tubaa defaroon mu taxaw temm ci 40 ans ci ñeent fukki at mu taxaw wuutu sëñ bi fexe ba ñoom ñëpp ñu topp ci gannaawam ànd di liggéeyal sëriñ bi ak ni mu doon jëflantee ak tubaab yi fi nekkoon ca jamono yooya ni mu doon jëflantee këri diine yi ni mu leen doon jëflantee ak àdduna xerañte googu mu ci amoon ci jiite loolu danañ ko waxtaanee sëriñ Moustapha Diop Ndar moo koy waxtaanee incha allah loolu mooy euh, loolu mooy mooy suba gi ci ngoon gi ñu waxtaanee lu jëm ci tuubaa ak édifice yi nga xam ne am na ko yoo xam ne yu diine la moo xam ay jàkka moo xam ay ay ay juma moo xam ay jàngukaay alxuraan moo xam ay ay jàngukaay xam-xam yum ci doon dees na ko waxtaane euh, ka koy waxtaane mooy sëriñ bu sa Assane euh, waaye ci ngoon googu tamit sëriñ Xaadi Jaxate dana waxtaane njàngaleem alxuraan ak njàngaleem diine ci tuubaa ni mu fi demee sëriñ Xaadi Jaxate moo koy traité loolu mooy bisub le 13 bi bu ko defee le quinze moo ci topp Louga la ñuy dem incha allahu Louga itam des na fa waxtaane ñaari tem ndax bennoog bennoog maanaam jullit ñi murit yi dañ cee yàgga daj ay coono ngir jullit ñi doon benn ndax dafa bokk bokkoon ci recommandation wala dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe woon mooy daa bëggoon jullit ñëpp doon benn wahdatul muslimina ndax bi ñu jógee ci xaswatu badrin sax li mu leen njëkk a wax mooy jóge nañ ci xeex boo xam ne li nu war mooy boole suñu bopp nekk benn ndax mooy tax du mën a non not noon yi te lislaam fu mu àgg ak bennoo moo ko fa àggale loolu bokk na ci lañ fay waxtaane sëriñ Basiru Mbàkke moom sëñ Cheikh Thioro moom Cheikh Mamadul Amin moom Cheikhul Xadim moo koy waxtaane Euh, buñ ca jógee itam xam ngeen ne fu demee ne Louga euh, dañ fa war a waxtaane itam maanaam lu jëm ci fàggulu lew fàggulu lew ni ko sëñ bi waxee kasbul xalaal ak gisiin wi ci yoonu murit am loolu sëñ Cheikhouna bu sa cumb leen moo koy waxtaane kay modéré jataay ba itam moo di sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Aziz ci loolu mooy moo mooy Louga suñ fa jógee itam njaarim la ñuy ñëw le vingt le vingt njaarim ñaari euh, waxtaan ñoo fa am mi ngi jëm rek ci résidence surveillée bi nga xam ne fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi nekk njaarim ni mu ko dundee ndax xam ngeen ne njaarim mooy barab bi nga xam ne fi la sëñ ba gën a yàgg ci àdduna ndax amul fenn ci àdduna foo xam ne sëñ bi am na fukki at ak juróom-benn njaarim mooy fi mu gën a yàgg ci àdduna fa la amee jotug toog taalibe yi di ko fa fekk. ba mujj man nañ ne kilifa yëpp dañoo amoon kër njaareem njaareem nekk capitalu mouridisme boo xam ne fa la ñëpp doon daje ci ci ci wetu sëriñ bi euh, loolu nag ka nga xam ne moo koy waxtaanee mooy docteur Khadim Silla kon fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi am njaareem sëriñ Khadim Silla moo koy waxtaan docteur Khadim Silla buñ fa jógee itam euh, sëriñ Mbacke Abdourahman dana waxtaanee ci thème boo xam ne moo jëm ci xutbatu wam sa sin ndax xam ngeen ne sëñ bi ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru muharram 1346 ci tàkkusaan gannaaw tàkkusaan la mujj génn ci mbooloo ba mu génnee itam te dajale mbooloo ma ba ñu daje dafa am benn xot ba benn waxtaan woo xam ne moom la waxtaan ak ñoom waxtaan woo nag waxtaanu dàggatoo la ak waxtaanu dénkaane gannaawam solo su waxtaan woowee am moo tax ñu wax sëriñam Mbàkke Abdourahmane ne ko na ko waxtaane waaye dugalaale ci nag maanaam ñibbisi sëñ bi ndax ba loolu amee ba mu fatu génnaatut ci mbooloo ba ni ko fi sëñ Modou Moussa jële indi ko Touba ci lay enchaîner nag waxtaan ci pexe yi sëñ mu saa def ba indi ko Touba ña ko fekkee ak indi gaag na mu demee loolu lépp ci la koy waxtaanee loolu mooy eh, njaareem waaye njaareem xam ngeen ne sunu mbokki Baye Fall yi ci le vingt dix neuf lu jiitu la la la levée ji le dix neuf dafa am ngont moo xam ne ngontum Cheikh Ibra Fall la ndax bi ñu ko waxee xalif général des Baye Fall te yëgal ko ko dañ cee bëgg lool mu am yéene itam ci mobiliser mbooleem daayiri sikar yu aju ci kër Cheikh Ibra ci ngoonu fukki fan yeeg juróom-ñeent ba set di ñaar fukk ci mois de juillet 2024 euh, bi ñu jëm nga xam ne dañ koy dañ koy yendoo sikkare sikkar ba keroog ñu ñu ñu ñu jeexal loolu itam muy ngontum Cheikh Ibra moo xam ne ci le 19 ji lay lay am bët set di lave di ñu traité thème yi ma wax léegi euh, bu ko defee ci Euh, le 21 nag euh, mooy doon ndakaaru ndakaaru nag juróomi waxtaankat am na fa ndax des na fa waxtaanee lu jëm ci euh, maanaam dimension sociale ak environnementale bi nga xam ne dëkku Touba am na ko maanaam Touba ni mu ni ni ni mu maanaam fi mu àgg. ci wàllu social ak wàllu environnement loolu lépp doctor docteur Samboussa moo koy waxtaane euh, bu ñu ca noppee itam euh, euh, contribution bi yoonu mu murid def ci wàllu tarbiya ruhiya maanaam yar nit ki defar ko tarbiya ko ba spirituellement mu mën a mu mu jag ñu mën ko wane fu ne mu mën a defarewaat loolu itam li ci Touba def li ci contribution bi mu ci def loolu Serigne Mbacké Lo moo koy def suñu noppee itam ci loolu docteur euh, euh, Abdoul Ahad Lo dana waxtaane ci contribution bi nga xam ne yoonu murit am na ko ci wala euh, yoonu murit am na ko ci njàngale mu mu yees mi njàngale mu yees mi ndax xam ngeen ne dafa am njàngale moo xam ne njàngalem diine la am na njàngalem majalis waaye am na beneen façon njàngale moo xam ne itam Touba dafa am wala yoon wi dafa am taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko ci yooyu docteur Abdoul Ahad Lo moo koy moo koy waxtaane waaye itam des na fa waxtaane contribution bi nga xam ne yoonu murit am na ko socialement et loolu docteur Jibi Jaxate moo koy waxtaane ndax loolu itam lenn lu nekk yi yi ma wax yépp nag mooy gannaaw bu fi sëñ bi jógee biñ ko indee Touba ak léegi lii ma wax lépp mu ngi aju ci biñ ko indee Touba ak léegi lan la ci ay xalifaam def sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdou Khadir sëñ Saliou Cheikh Mouhamadoul Amine Euh, euh, sëñ Sidi Mokhtar ba ci sëñ Muntaxa ba ba ci doomam yi nga xam ne sax duñu ay xalifa waaye contribuer nañ ci loolu ku ci nekk boroom xam-xam yi luñ ci àgg danañ wax ñooña lañ la lañ ca def waaye itam des na waxtaan ci Touba ci développement bi mu am maanaam nga xam ne yokkute gi mu yokku loolu euh, docteur Cheikh Guèye moo ciy waxtaan ki nga xam ne nag mooy modéré jataay boobu mooy sëriñ Mamor Hamdi kon loolu mooy. waxtaan yi nga xam ne mooy am ci euh, euh, ñu tàmbalee ko Touba ba Ndakaaru waaye xam ngeen ne bu ñu màggalee ba ci suba yi sa ba suba itam am na euh, cérémonie religieuse boo xam ne dañ koy amal mooy bisu màggalu Daaru Xudus gi ba ca suba sa boo xam ne li ñu waxtaanee Touba ci le 13 waxtaane ko Louga le 15 waxtaanee ko Njaareem ci la le 19 ak la le le le 20 waxtaanee ko Dakar le 21 loolu am na tënk bu ci commission culturelle bi di def boo xam ne. ci euh, cérémonie religieuse boobu lañu koy gaarale waaye itam kilifa ya fa teew dana ca sànni kàddu moo xam ne xalif général des mourides yabal moo xam ni autorité yabal waaye itam sëriñ Ahmadul Mokhtar dana fa yëkkati kàddoom kon loolu mooy jëmmi cérémonie religieuse bi kon loolu mooy programme bi nga xam ne tënkoon nañ ko ñu di ko jot li ci commission culturelle bi nga xam ne sëriñ Modou Bara Mbacké moom sëriñ Abdou Khadim moom Cheikh Mamadou Amine moo ko jiite te ñu am ngànt ñu sant ma ma jot li ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. foo naa kilifa yi li ñu wax. wax ji leer nañ dikk nañ ci li nga xam ne mooy ndigal li sëriñ bi joxe mu di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax li ñuy def lépp moom lañ koy defal mu jaar ko ci sëñ Ahmadou Mokhtar mu wàcce ko ci njaboot gi dikk nañ ci li nga xam ne noonu lañ ko yaatale seeti mbooleem kilifa yi ak ni nga xam ne aussi noonu lañ bëggee mbooleem taalibe yi kenn ku nekk la ko ci war mu taxaw ci xam ne yëf yi yëfuma dikk nañ ci wax ak ñi nga xamante ne ñooy waa àdduna si ndax sëñ Touba foofu la àgg kon mu ngi koy defal lu toll nii fépp fu nekk ci àdduna si rek war ngaa xam ne kat bis bi ñu ngi koy waajal fii ci fii ci dëkk bi dikk nañ itam ci ci programme bi programme bi foog naa mën nañ koo tënk ci ci tënkil mu gàtt day day mel ne jublu gi rek moo di delloo si leeral li nga xam ne mooy yoonu murit ci boppam fondement yoon wi identité yoon wi ak lu yoon wi ak lan mooy jëm yoon wi ak li nga xam ne lu ko sëriñ bi bëgge woon loolu nag dañ koo def ay pàcc-pàcc bokk na ci pàcc boo xam ne day aj ci wàllu jàngat ci wàllu koom lan la ci yoon wi def ci téeméer ak yi jàll am ca pàcc boo xam ne day ñëw ci jàngat ci wàllu xam-xam jàng ak jàngale ak yar lan mooy ci taxawaayu yoon wi ci at yi nga xam ne euh, jàll na am ci pàcc boo xam ne daa mel nañ ko jagleel li nga xam ne mooy dëkku Touba ni màggee gi gaawee ak ni muy doxee ak loolu yan conséquences lay am loolu aussi dikk dikk nañ ci ginnaaw bu ñu am waxtaan yi loo xam ne jagleel nañ ko kii di Cheikh Mouhamadou Moustapha nga xam ne moom moo indi woon sëñ bi fii njëkk a wuutu sëriñ bi te bis bi itam moom moo ko moo ko moo ko sosoon ak nag dénkaane bu am solo bi nga xam ne si ñu dénkaane woon ko ci buy mu mujj ci fukki fan yi ak juróom benn ca ca njaareem kon foog naan ci tënk loolu mooy waxtaan wi